nga xam ne ñoom la sañ jox digal sañ leen tere kàddu yi nag mu ngi koy jëmale ci bokki taalib yi nga xam ne ñooy waa Touba ci kanam fii dëkk bi toll ak nawet bi bokk na ci yitte yi gën a jàmp mooy jàppale sëriñ bi ci lii xew ci dëkk bi mooy taataay ak lépp lu ñu mën ci wàllu assainissement bi ngir dem bi ak dëkk bi gànn yomb ci biir dëkk bi ci loolu nag ci lañ xalaati xalaat yi nga xam ne def nañ ko bi ñu ko xalaatee ñëw ci sëriñ bi sëriñ bi joxaat ma ndigal itam ne ma naa ko ànd ak yéen te soññ ci bokk bi yëpp ñu ñëw ànd ko ñoom ci liggéey bi ci lu ñu mën nag ci ci lu ci nit man ci xam-xamam ci alalam ak jëfam ak kàttanam ak nu mu ko mënee rek mu ñëw ànd ko ñoom ci liggéey bu rëy bii ndax xam nga ne dëkk bi taataay bari na am na ci mbedd yoon kenn moo du fa ndax fii na bu toll te doonatul lu ma a xaaritam moo tax sëriñ bi jox leen ci digal di ñaan itam bis bi buñ ci àggee muy juróom-ñett fan ci weer yi nga xam yi ñu jëm weer yu ñu nekk fas ko ci ne tàmbali ñëpp dem ànd ko ñoom sëriñ bi joxe ne digal bu bis baa ñu ñëw ànd ko ñoom soññaat bokk teel bi soññaat bokk julli képp koo xam ne bëgg nga baax te mën a eh, yëkkati saw ñaq wala sa alal def ko ci nga def ko ci ànd ko ñoom ba ni ko sëriñ bi bëgg moom te xam ne sëriñ tu moom na ko jëwree ñoom daa waxee rek Cheikh Ibrahima Fati dalaa wax ne liggéey sëñ Tuubaa war na ñëpp te du wàcc kenn wax ne sëñ Tuubaa lépp lu mu bëgg dana am lu mu santaane it dana am. Tuubaa ci kanam moom mooy mbooloo mu ànd di di jëfandoo boole seen xol boole seen xalaat te lépp jëm ci sëñ bi. dëkk bi yëpp. da ngeen toog ba mën koo defal seen bopp. kon dara doo bett ci lii ngeen def waaye nag teewul nag na ci man ndax man yitte moom yitte moom dama ko yemul wala dara te yitte rek la. yitte man yéemaluwuma ko daa yitte rek la lu sotti rek gannaaw gannaaw gannaaw dogul sa borom yitte ko sottal yitte ji nag ma gis moom wax dëgg yàlla yitte ko mënut a weesu wajalilaayi maskani tubabat misras mi abijaayi xayri ma nabaat